nekk doo ànd ak moom mu nekk nekk ministre des finance am ci giiru juróom-benni at ma jóge fa nekk ministre des affaires étrangères ci ñaari at je suis sorti du gouvernement après je suis revenu dans le gouvernement comme premier ministre il pouvait être candidat il l'a pas été il m'a désigné comme euh, candidat et confiance mënul ëpp c'est vrai ay nit tànk bu ñu lu ñuy gën a jege toujours ya y a des possibilités de di wax fii di wax fale mais très honnêtement que président de la République en tout cas man j'ai jamais eu le sentiment beneen sentiment bu dul sentiment de confiance et tout et campagne bi gisoo ko ci mais mi ngi may jàppale ci biir ak ci biti parce que une campagne n'est pas simple euh, il a une très grande expérience je lui parle régulièrement je le vois régulièrement bi ma génnee ci gouvernement matagul ñaari semaine donc euh, te c'était pour entrer en campagne te lu ñu doon waxtaanee la bu bu bu yàgg li ëpp ci li am li ñuy wax la ci bi ci biti maintenant euh, souvent nag di nga gis ay nit ñuy wax lii am na lële am na mais entre le président et moi c'est vraiment des relations de confiance des relations d'affection président a beaucoup d'affection pour moi maintenant nit ki boo ko yilifee yenn saa yi mën nga ko yuuxu mën nga ko gëdd mën nga ko mel ni ko ko xaw a mere mais ça ne remet pas en cause fondamentalement li dox seen diggante je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses parce que booy liggéeyal nit ki di ko rendre compte mën nga ko rendre compte euh, tey jii mu na la félicitation suba nga rendre ko compte mu ne li nga def day dara baaxu ci boo c'est c'est ça ne ça ne sort vraiment pas de ça du cadre du du en tout cas euh, du loo xam ni man dund naa ko président Macky Sall directement maintenant ci biti nag gaañ yi di wax mënoo leen tere wax mënoo leen tere def ay supputation buñ ko gisoon ci campagne ñu ne wéy mi ngi fi bàyyi li réew mi di campagne buñ ko gisul ci campagne ñu ne voilà gis nga jàppalewul candidat mais il me soutient de la manière la plus efficace maa ngi waxtaan ak moom et aujourd'hui vous avez constaté que tout le toute la coalition est mobilisée sans exception maintenant ci tànn ba effectivement il y avait quelques problème parce que l'unanimité n'est pas de ce monde je ne souhaite même pas ñu jox ma loo xam ne man kese maa koy bëgg man kese ñëpp ci ànd toujours dina am ñu ñu bañ maintenant ni nit ñi di réagir du doon benn am na ñoo xam ne dañuy bañ banque seen loxo du ñu wax am ñoo xam ne dañ la koy won bon bref am na ñoo xam ne sax du dañ la koy won mais du ñeem ci loolu dañuy dem di jéem a fexe nga échoué mais ça c'est la vie yàlla dimbali na ma j'ai quand même une grande capacité de résilience Euh, yooyu yëpp euh, pour pour moi c'est c'est c'est du c'est du passé quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi j'essaie de comprendre lan laa def ba moom mënul d'accord et non moom li muy def moi je je me c'est une question que je me pose moi-même man lan laa def